internet yi ñoo ngi leen di nuyu di leen jaajëfal di leen wax ni rek dal leen ak jàmm fi seen chaîne youtube seen acti tv tey nag di altine ñaar fukk ak fan ak ñaar ci weerum août atum 2022 dañuy ñëw ak yéen ci li gën a fës ci xibaar yi xibaar yi njëkki tey dinañ ko door ak ancien député libéral bi di Toussaint Manga gannaaw ba mu annoncé li dip démission wam tey ci bi lépp parti di parti démocratique bu senegal ñu gën ko xam ci PDS ancien ministre di Ouseyni Camara ministre bi di Ouseyni Camara moo ñàkk bakkanam foofe ci prison bu Guinée moom nag lii di AVC ñu gën ko xam ci accident vasculaire cardiaque moo ko daaneel foofe ci kaso ba ay mbokkam nag di xamle ni rek yàgg nañ artu nguur gi ngir kile di Ouseyni Camara euh, ñu yóbbu ko bitim réew faji ko footballeur bi di attaquant bu Sénégal di Sadio mi ngi liggéey lu doy waar ca Bayern ministre tey nag ci match bi équipe boobee amaloon moom nag di Sadio Mané jot na fa amal app bi ba tey dañuy des ci wàllu football rawatina ci sénégalais yi nekk ci Chelsea di Kalidou Koulibaly ak Edouard Mendy ginnaaw ba kii di défenseur bi di Kalidou Koulibaly jot na am tey ji ci match bu ñu amaloon ab carton rouge ba mu génn match bi foofee ci Chelsea nag di mel ni tey ñoom nekkuñu ci seen jour ndax ki di góol bu di Edouard Mendy encaissé na ab bi bu mu xamante ni mënoon na koo invité artiste bi nag di Viviane Chidid Ndour ginnaaw ab amision bu mu amaloon foofee ci 2STV muy xam la ni rek moom mii di Viviane ubbi na bunt yi pour borom kër mën a dugg golden boy de la musique sénégalaise di doom ci feu Papa Thione di Wally Seck xam la ni rek moom ndaw la bu nekk ci yoon te fi mu bëgg àgg àggu fa mi ngi ci liggéeyam te di ñaan rek fi mu bëgg àgg mu àgg fa kaw ceef mu am ci Kaolack gannaaw ba ñu fa njoxtee ab waay buy def li dip sacrifice moom nag ay nag yu bëri la daal di yoro moom waaye soosee nag di def nag mbedd bu mu jub rek dal di fay rend benn nag daa di am lu mu wax ña ko fekkee nag nee nañ yor na ab téere te yor na tamit ay garlaaj yu doy waar te ñoom nag ñu ngi koy bëgg euh, approché mais boo ko jubee rek day mel ni doo xam lu muy wax li di mel nag mi ngi xewee foofee ca Kaolack Kumba di ab joué katu théâtre ñu gën koo xam ci série bii di infidèle moom nag la am ñaari soxna kenn di woo ci turu Rama keneen ki di wuyoo si turu Awa jël lii di turam bu boowoo ko ci digg dëkk bi di ci def ndax su dul noonu nakate ñaar ñi ay nit lañu ñoo xamante ni dañuy jël turu kumba boobee di lekk ay xaalisu nit di def lii di tubaab di ar arnaque xibaar yi tey nag dinañ ko ndar keppe ak lii xew foofee ca Canada bu Sénégal ginnaaw ba waa population bu Canada daal bu jógee ci diggante Canada ak technopole bu banlieue bu Ndakaaru bi di leen bëgg a sonal moom naka tey xet boobu ab néew buñ fa abandonné la woon néew bi nag ba tey kenn xamaloo ko ñu ko sànni mais askanub Canada jot nañoo woo lii di police pour mu ñëw àddu ci li lay mbir police nag tey nag amaloon na lii di descente foofee ca Canada ngir xam lan moo am foofu noonu tey nag fii lañuy ñuy xibaar yi di daje ëllëg laata loolu nag woy leen di abonné te bu leen di appuyé wu cloche bi pour di mën a am suñu ay vidéo à la prochaine ci yeneen information fii seen chaîne YouTube SENactu TV